salli bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala seydina maulana muhammadin wasalim ñu ngi leen di ziar wax dëgg yàlla di am kontante lool lool lool lool ci julli it gi ni julli suñu imaam seydina isa laay gajege jiite ak sunu magi dëkk bi wax dëgg yàlla ak ndigal li ci dëkk bi ci àdduna bi yépp sax parce que yit bi na amé autorisation ñu ñu war ngeen julli ndax la ci gën neex sax moy commandant bi na mu joxe ordre bi ni ñew na fi ñaari àjjuma gis ni ngeen jullé ma rafetlu ko lol espace bi kon jox nañu autorisation pour ñu julli waaye yalla dogal na ñun ak sama rak yi ma nekkal samay jarbat samay dom samay lepp ak suñu doyen syndicat vraiment mu taxaw ñu taxaway bu am solo ñu respecté it lepp lo xamné waxon nañ ko ci organisation bi distance beeg raxas yi ñu war a raxasoog li ñu war a comporté woog yëpp macha allah yàlla defal ñu ci ay xéewal ak ngëneel lépp matale nañ ko ñuy ñaan si yàlla mi nga xam ne mooy buur di borom mbas mii fi am yàlla na yàlla borom bi jëlal ñu ko fi ci barke Baye Laye alayhi war may Chérif Abdoulaye waaye ñu ngi ziar ñëpp di leen balu àq di bal ñëpp àq di ñaan yàlla borom bi mu baluñ jóge ci barke Baye Laye alayhi salaam jërë ngeen jëf jërëjëf laay